jërë ngeen jëf mbokk yi internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu nu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy dore ak euh, taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang moom nag gannaaw bañ ko tegaatee loxo mu daal di dooraat rek grève de la faim mu mel ni information ngay circuler rek ñuy wax naan moom Pape Alé Niang daal di nañ koy bàyyi rek gannaaw ba nga xamante ne état am daal di nay critique lool ci loolu nag moom bañ ko delluwaatee ca prison ba mu ngi wax sax naan nañ ko gasal rek bàmmeelam ca cellule ba te xam ne grève de la faim ba nga xamante ne moom la doon def daf ci daal di delluwaat rek waaye. a gannaaw nag état de santé am daal di critique lool ni kii démb ñu daal di koy rek yóbbu ca l'hôpital principal ngir rek daal di saytu wérgu yaramam mu mel ni nag information ñu koy circuler di wax sax naan moom Pape Alé Niang daal di nañ koy bàyyi jamono ji wax ci leneen kii di Queen Biz nekk na artiste jigéen ñi sax laay wax ku njëkk rek am lu toll ci deux millions d'abonnés loolu nag gannaaw benn artist amu ko Cameroun Biz nag daal dina baat rek bi les record daal di am lu toll ci ñaari million ci ay abonné a xamante ni daal dinañ koy sopp lool di ko topp moom woykat bi waaye nag ñu des ci Queen Biz moom sax ba tey ak sax kàddu a nga xamante ni rek daal dina koy yëkkati gannaaw ba nga xamante ne yenn ci ay rappeur kii a njiitu réew mi di Macky Sall daal dina leen dalal rek loolu a ngir waajal événement taaru rap Galsen moom Queen Biz a baax di Afrique wuy ji njiitu réew mi mu mel ni nag dafa bokk gis-gis ak ka nga xamante ne moom moo di nit dof moom tamit daal di wane ab mer goo xamante ni rek am na ko ci ñi nga xamante ni sax jàpp na ne ay frère am lañ di yëngu rek ci wàllu hip hop bi comme moom daal di rek dem wuy ji ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall ci loolu nag moom nit dof nag gannaaw ba nga xamante ne daal di nañ koy lànkaloon rek show ba nga xamante ne daf ko bëggoon a amal rek mu mel ni ci même contexte boobu sax. sax daal di nay rek ñenn ci ay rappeur dem wuy ji nga xamante ne moom moo di njiitu mi loolu nag daal di tax ba moom kii di euh, nit dof ak Queen daal di am lu leen métti lool ci artiste rappeur yooyu nga xamante ne euh, demoon nañ wuy ji njiitu réew mi di Macky Sall euh, ca lool sax ba tey kenn ca ñoom nga xamante ne teewoon na ci bile mbir di Simon Kouka daal di nay wax rek ca visite back la nga xamante ni sax jot nañ ko waxtaan ak ka nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall bokk na rek di wax naan wuy ji Macky Sall du du tee rek ñu ànd ak moom ci lépp loo xamante ni rek daf koy def visite boobu nag dafa nekkoon loo xamante ni ab waxtaan la rek waaye ñoom bu ñu yemut ak moom gis-gis tamit dañ ko koy daal di wax Simon daal di leeral li ni mel waaye nag keneen ku teewoon ci li ni mel di riifu moom nag mu ngay wax rek naan nañu teey bu baax a baax ca seeti boobu nga xamante ne demoon nañ ko rek foofa ca palais wuy ji ndax kat lañ fa waxtaanee nekk na loo xamante ni tamit du lu neex njiit réew mi rek lañ ko doon wax waaye tamit bokk na ci wax seen i Alias waaye tamit taasal ah, ñëpp ñi nga xamante ne ah, ñoom ñoo nekk ca mouvement hip hop kon nag ah, image yi nga xamante ne mu ngi circuler ku ca nekk rek di dal a rappeurs yi di wax rek naan dal moo tax ñu daal di dem rek ca palais wuy ji kii def ndànk bu baax a baax ci mbir mi. kii di Jeba daal nay rek addu ca la nga xamante moom moo di ay débéem mu daal di doon lu difficile lool moom nag récemment la daal di rek fësal ab albumam Jeba nag di wax rek fa mu nekk. nekkee woon sax foofa ca diwaanu Kolda ak ya nga xamante ne jot na koo dund rek ca kër nijaayam mu wax sax nan ngir mu lekk ba suur rek daf doon daal di sax sàcc lu mu lekk rek loolu daal di nekk loo xamante ni lu métti lu mu dund la foofa ca diwaanu Kolda waaye nag mën na wax ne loolu lépp souvenir yu yàgg la rek ndax jamono ji mu ngi sant yàlla bu baax ñu daal di wax ci anniversaire bu Kane Diallo foofa ca King Fahd Palace moom nag ñëpp ñëwoon nañu wuy si ko boobu nag rek kii di Thione Ballago Seck ci loolu nag moom Kane Diallo daal di na rek am ay visite yu bëri waaye tamit ay artistes yu mag sax laay wax ñëwoon rek ci bile anniversaire bokk na ci ki nga xamante ne moom moo di Baaba Maal ak sax anecdote yi nga xamante ne jot na ko fa wax rek mu daal di nekk loo xamante ni a daal di nañ koy def ci ambiance ñëpp daal di a ci anniversaire bu Kane Diallo beneen anniversaire la ñuy waxtaanee muy bu ñaareelu Thiès euh, ci euh, Ramdan euh, ci Wally Ballago Seck anniversaire ba nag nekkoon lu neex lool Cheikh Niane nag daal di gâté sa femme bu baax a baax ay xaritam ak ñëpp teewoon mu daal di def rek ab anniversaire royal kii di ay Aïda Samb daal di nay àddu rek ci ki nga xamante ne moom moo di borom këram moom Aïda Samb nag gannaaw ba nga xamante ni sax mu nga rek dundu mbégte bu baax a baax ak ki nga xamante ne moom moo di monsieur Diar a di borom këram mu ngay wax rek naan kii di borom këram. mbiram nag na mu jàppee bu baax a baax ci carrière am te dafa nekk loo xamante ni tamit daf ko daal jàppale bu baax baax te il tient sa carrière loolu nag daal di nekk ab taxaw boo xamante ne kii di borom këram mu ngi ko koy defal keneen ku daal di wax rek ci relation ak borom këram Pendo lay wuyo bi yoon nag ca anniversaire am sax mu mel ni borom këram moom moo daal di def rek ay témoignage à l'endroit de sa femme loolu nag daal di nekk ay témoignage yu daw yaram loolu daal di gërëm bu baax a ki nga xamante ne moom moo di Pendo nekk sœur ci artiste bi di Demba Guissé moom Penda Guissé nag gannaaw ba nga xamante ne mu ngay amal anniversaire am rek kii di borom këram daal dinay def ay témoignages yu daw yaram loolu ka nga xamante ne nag moom moo di soxnaam Lisa la femme de porte moom la ñuy gis noonu rek très bien habillée en rouge moom Lisa nag nekk tamit koo xamante ne am na taxawaay bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di internet bi récemment nag gis nañu cliché nga xamante Quotidien euh, daal dina koy publier rek euh, toute belle toute ravissante euh, Lisa la femme de Pote ñu daal di jàll ca diwaanu Gambie Wally Balago Seck amal fa soirée VSD loolu nag daal di nekk loo xamante ni sax mu ngi ca doon sargal rek xale yi soirée ba nag neexoon na lool ca Gambie Wally daal dina koy yëngal bu baax a baax waaye tamit ki nga xamante ni sax moom moo di danseuse am di Awa Banaya daal dinay choqué le public ak sax accoutrement mag façon feccam loolu rek mu daal di koy def rek ci ab ambiance bu baax a baax waaye nag ca kaw seen ba ah, gis nañu ka nga xamante ne moom moo di ab xale bu ndaw nekk turandoo ci Soxna Aydara la femme de Wally Ballago Seck ah, moom xale bi nag daal dinay offrir rek Wally Ballago Seck ab caabi oto ah, Wally nag daal di kontaan lool di wéy sax ka nga xamante ne moo di turandoo ci soxnaam lépp rek ci ambiance keneen ku daal di dund ambiance ca Italie la xewe woon muy Sidi Diop moom nag gannaaw muy bégal rek ci période Noël bi ña nga xamante ne ñoo nekk foofa ca diwaanu Italie ak nga xamante ni moom moo di danseuse a di Ndeye Ndiaye Banaya daal dina yëngal bu baax rek bi les soirée ak sax a fecc katam bokk na ci a moom Sidy Diop nag daal di def soirée bu réussir lool guichet fermé daal di rek duy salle ba mu fees del bégal fansam ya nekk foofa ca diwaanu Italie ñu daal di wax ca visite ba nga xamante ne kii di Dof Ndeye daal dina koy defar rek yaay ci wàllu Balago Seck ah, muy Mame Kiné Diouf Diaga Dof Ndeye nag ak conseil yi nga xamante ne kii di yaayu Waly Balago Seck daal dina ko koy dénk rek ah, bokk na ca li tax mu gën a sopp rek Dof Ndeye mooy ni mu taxawoo rek kii di waajuram bu jigéen ah, loolu nag daal di tax ba Mame Diaga daal di kontaan lool ci Dof Ndeye daal di koy dénk ay conseil yu am am solo soxna Batoor la ñuy gis noonu rek très bien habillé soxna Batoor nag bu série famille sénégalaise am tamit ab complicité bu yaatu ak ka nga xamante ne moom di maarlu moom soxna Boto nag la ñuy gis noonu rek mu nekk koo xamante ni tamit sopp nañ ko lool à travers la série famille sénégalaise wax ci keneen Adja Ebruer moom la ñuy gis noonu rek très bien habillée séduit encore ses followers moom Adja Ebruer nag am taxawaay bu baax a baax ci internet bi récemment nag gis nañu cliché nga xamante ne daal na koy publier rek à chaque fois muy séduire rek nga xamante ne ñoom ñoo di ay followers am Noël ca diwaanu France Virginie foofu la ko féetee nag jamono ji mu nga foofu ca diwaanu France gis nañu look ba nga xamante ne daal na koy def rek à l'occasion des fêtes de Noël. Noël moom Virginie nekk tamit actrice bu ñu xàññee bu baax a baax fii ci Sénégal Fa Aïdara la ñuy gis noonu la tiktokeuse très bien habillée en tenue traditionnelle moom Fa ay Aïdara nag fu ne lay génn bi yoon mu nga def tenue traditionnelle daal di rek boole ci ak takkaay yu am solo Fa Aïdara nag gannaaw publication yi les photos na ci ay commentaires yoo xamante ne jot na ko rek mu nekk ay commentaires yu positif yoo xamante ne ñu ngay apprécier rek tenue traditionnelle ba nga xamante xamante ne moom Fa Aidara daal dina koy sol kawteef Samb Gueye nekk ab waaye bu ñu daal di jàppoon rek foofa ca diwaanu Thiès tëj ko rek ca maison d'arrêt et de correction bu Thiès loolu nag lañ ko tëjee mu mel ni dañ ko daal di tooñ rek ba noppi tëj ko gannaaw nag ba nga xamante ne ni moom daal dinay am rek ab diir bu yàgg foofa ca maison d'arrêt de correction bu Thiès daal dinañ koy bàyyi rek loolu nag moom mu mel ni sax bët yi neexatul woon dara gannaaw nag yàgg nga xamante ne yàgg na ko foofa ca kaso ba daal dinay ñàkk lu bëri bokk na rek ca la nga xamante ne moom moo di dundam nga nga xamante ni sax daanaka mën na wax ne dafa daal di soppeeku bu baax baax waaye nag jamono ji mu ni sax seen famille rek ñu ngay dajaloo ngir jaay kër ga rek fajal ko la nga xamante ne moom moo di bëtam ya nga xamante ni sax daal dinay naqare rek ca prison bañ ko tëjoon bu maraîcher kawteef la ñuy wax ab coxeur sortissant somalien moom moo daal di agressé rek ab policier ni ki tey loolu nag gannaaw a ak yenn ci ay passager ci loolu nag ba takk der ba daal di intervenir rek moom coxeur ba dafa daal di dóor rek policier ba ba noppi rek xotti tenue ba ci loolu nag moom yoon daal di na koy teg loxo rek ba noppi ñu dal di koy placer en garde à vue foofa ca commissariat bu Pikine 553 individus ñoom la ñu daal di interpeller rek foofa ca diwaanu Kédougou loolu nag opération de sécurisation bu ni gendarmerie daal di nañ koy def rek ngir démanteler ab site d'orpaillage ci loolu nag la ñu fekk ci site ba bokk na ci ay alcool drogue ak yeneen xeet yoo xamante ni mu mel ni yoon daf koy daal di aay rek waral ñoom takk der ya nag daal di cay teg loxo ñu toll ci cinq cent cinquante trois individus wax ci accident bu métti bu am ci diggante Sindia ak Mbour loolu nag daal di waral sax kenn ku jigéen ku am lu toll ci vingt ans daal di cay ñàkk bakkanam koor ba nag sàpp sapeur pompier ñoom ñoo ko daal di jël rek yóbbu ko ca l'hôpital Grand Mbour ñu daal di jeexale wàllum tàggat yaram mu mel ni Chelsea daal di nañuy doyal ci Kalidou Koulibaly jamono jooju nag fekk na sax am na ab club italien bu daal di taxaw rek ngir récupérer waat défenseur bu Sénégal bi Iliman Ndiaye encore décisive ak club ma di Sheffield United moom Iliman Ndiaye nag mu ngay wane boppam bu baax a baax foofa ca club ma ni ki tey nag seen match ba mel ni daal dinay am corps bu Ismaïla Sarr ni ki tey dañoo daal di nërmeelu rek gannaaw bañ leen fekkee seen dëkk rek daal di leen dóor ñoom waa Watford ñu daal di jeexalee wàllum làmb mu mel ni open presse Balla Gaye 2 ak kii di Boy Niang ni ki démb Boy Niang 2 nag ñëwul ca face à face ba loolu nag daal di nay excusé wu sax gannaaw muy amal ab open presse am rek di jéggalu ci absence am boobu waaye tamit di promettre rek ne combat bi daf leen ñor bu baax a baax ñoom pare nañ pour def ko mbokk yi safandoon ñu teewlu li lañ leen an loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm li leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal close notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf